président de la république Macky Sall di ci teg le président de Abdoulaye Wade di wax sëriñ bi taalibe yépp bég nañu ñoo ngi ñaan ci màggug jaamu yàlla gi sëriñ Touba jaamu woon boroomam ba mu fayee ko lii nga xam ni sëriñ bi jenn yitte la yoroon benn yitte la amoon mooy lislaam mooy jaamu yàlla mboolem seen jullit yi ndax fii këru diine yépp nga fi ñépp ñëw nañu wuy si la ñi nga bokkal lislaam bi yëpp muy këru diine yi ba ci bitim réew ñépp ñëw nañu wuy si la teerule la ñi nga xam ne ñii yaa leen woo ci ubbiteg gi nga xam ne mooy ubbiteg jumaay Masalikul Jinaan jumaa ji nga xam ni yàlla moo ko fayee Serigne Touba ci màggub jaamu yàllaam ga nga xam ne bii moom la jaamu woon yàlla ci natt yu rëy yi nga xam ni suñu boroom tegoon na ko ko nga nekkal ko fi nekk ci kanamu njaboot gi di dimbali ñépp di tette ñëpp di woote jàmm ci réew mi di ko woote ci àddina bi yëpp ñoo ngi ñaan ci màggu suñu borom yàlla na la fi yàlla yàggal wéral la li nga bëgg yaa ko xam Mbàkke yàlla na ko yàlla def te bëggoo dara lu dul yëkkati baatu lislaam baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom la sëriñ bi amoon di ko yëkkati moo doon dundam moo doon nekkam nga nekkal ko fi di ko yëkkati di ko yëkkati ngir diine ngir lislaam ñu ñu ñu lay santale sa ñaari gan yu baax yi yëpp nga xam ni ñoo nekk fii ñuy doomu réew mi ni ko waxe kii di bàyyi kii di doom yàlla dajale leen ci sa kippaar àddina bépp a ngi lay sant ñëpp a ngi lay gërëm ñëpp a ngi ñaan yàlla yal yàlla yokk jàmm ci réew mi yal na yàlla yokk wërsëg ci réew mi yal na yàlla yokk xéewal ci réew mi sëriñ bi li ma taalibe yi waxoon ni naa la ko wax mënumaa wax lépp ndaxte li taalibe yi yéene woon ëppoon na lool waaye jotaay bi moo xatta tàng waaye sëriñ bi na la biir nii taalibe yëpp ngi lay sant cant giñ la sant nag du dara li tax li nga leen teg ci lislaam teg leen ci woote ci baatu kàlli eh, kàddu suñu borom gi di laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon maa ngi gàttal kàddu gi di la wax sa mbokku lislaam yëpp wuy si nañ la sëñ Papa Malick mii moo fi tee too te teewal sëñ Babacar Mansour ak délégation kër diine yëpp koo gisul it ñëw na fi te teel na ñoo ñëw ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant président Macky Sall di sant président Abdoulaye Wade di sant tamit Cheikh Mouhamadoul Bachir mi ngi ñu boolee woon liggéey bi ba liggéey bi mel nii ba tey jii ñu jël ko di la ko jébbal nga di ko jébbal l'islam bi kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaye ñoo ngi lay biral tamit sëñ bi cant gu wér a wér a ñu ma boole loon liggéey bi di ci jéetal sëñ Moussa Nawel mi nga xam ni dafa nekk ci sa ginnaaw doon sa taalibe doon sa lépp kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.